والقلم وما يسطرون وآله وصحبه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk yi jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu kilifa yi waa comité yaatal mbindum alquran ñoo amoon liggéey bu ñu doon def tey jii muy final ñu war a wax taane liggéey bi ak fiñ ci toll ak fiñ jëm programme bi nag ni lay doxee danañ jox Serigne Sambake Serigne Sambake mi jiite woon liggéey bi euh, ci njiitul sëriñ Khadim Ndiaye ak sëriñ Moustapha Diop Ndar ak ñi mu ko àndal ñëpp sëñ Sam tey moo leen représenté moo war a jiita ji njëkk ay kaddu ci liggéey bi ak ni ñu ko doon liggéeyee buñ noppee danañ dox sëriñ Mbacke Sourang moom it mu wax ci ndigalul kilifa yi ba tey représenté sëriñ Xaarim Ndiaye buñ noppee danañ jox kenn ci candidat yi muy sëriñ ab Lahad Jaxate moom mu wax ci seen tur buñ noppee dana jox sëriñ Fallou Seck moom mi fi teewal société bi muy euh, C3S ci ndigalul kilifaam sëriñ alaaji sëriñ Seck bu ko defee moom mooy tëj kàddu yi bu ko defee ñu joxe kado yi bu ko defee kenn ku ne dara jàll ko ku ko war a jox kadoom kon ñu déglu loolu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziyaare di ci jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xamante ne bii moo fi nekk Cheikhuna Ahmadul Khadim di njiitul yoon wi ñu nekk fii nag liggéey boo xamante ne bii maanaam mooy jëwriñ ji ci toolu Cheikh Ahmadul Khadim muy wàllu li ay ci li ñuy wooye concours yaatal mbindum alxuraanul karim bi nga xam ne euh, C3S mooy société de ñu ngi koy taxawee at mi nekk juróomeelu at kon nag dañu leeral leen rek fi nga xamante ne bii tey fii lañu ñu toll ci liggéey bi xam ngeen ne jataay bi mooy suñu juróom mooy suñu ñeenteelu jataay ñu di ko am ak yéen mel na ne ñu ngi ci cat ci catul liggéey bi kon laaj la bu ñu fi accès ñu tënk leen li weesu leeral leen itam li nga xam ne mooy ne ci suñu kanam ñu xam ne jataay bii tey ñu nekk nga xam ne moo ne woon finalu concours bi am na jataay bu ko fiitu ginnaaw muy demi final yi ñu defoon demi-finale yooyu nag xam ngeen ne amoon na ñeent fukki nit ña jiitu ñoom bokkoon nañ ci ah bañ bokkee ba noppi jury bi nga xam ne ñoo yore topp mbind mi ak la caaju nañ ko topp nam jaadoo bañ toppee ba noppi ñaar fukki ya nga xam ne ñoom ñoo jiitu ñooñu ñoo ñëwoon tey doon def final waaye itam société bi ngir fonk fonk liggéey bi ak itam maanaam cëral gu muy cëral mbooloo mi àgg na ci ba képp ku bokk ci concours bi rek mën nañ ne kenn la du xañ kenn ku nekk dana am lu mu jël loo xamante ne teg ko ci sa loxo sante la ko gërëmi la ko donte xam nañ liggéey bi ñun ñëpp ñoo ci bokk liggéey bi alxuraan karim la ci loolu itam ñaar fukk ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci demi final yi te jàlluñ finaal teew nañ fii ñu war leen a teral sargal leen leeral leen itam tuuti ci liggéey bi loo xamante ni bi dana leen jariñ dana jariñ ña nga xam ne bokkuñ ci woon dana jariñ itam ñi nga xamante ne tey yi ñoo newoon fi doon final ñu xam leen leeral leen ne liggéey bi liggéey la boo xam ne yéen ñi toog fii tey muy ñaar fukki yi nga xam ne yàlla dogal na yéenoo doon def demi final te jaaru leen finaal liggéey bi ñu xam ne moo bindoo noonu nañ xool ca mbooloo mu baree bari ma nga xam ne bokkoon nañ te ñëwuñ demi final kon bi dana woyof bu baax ñu xam ne liggéey bi liggéey bi dafa nekk liggéey boo xamante ne bi dafa nekk liggéey bu bu bu bu buñ fonk lool defuñ ci itam lenn ci ay maye wala lenn ci ay caaxaan walla lenn ci ak woyofal moo tax liggéey bi nit dana mokkal alxuraan karim lool mën a bind mbind mu rafet lool ba ku xamul mbind da yaakaar ne kii moo war a jël première waaye bu ñëwee ci jury bi ak liggéey bi du jàll la ko lu ko lan moo koy waral day nekk jëmm joo xam ne li ay ci wàllu maanaam xuraan ni ñu ko ni ñu koy bindee ak ni ñu koy maase foofu lay am ay jafe-jafe muy benn kon tax na xëy na kooku mën naa bind loolu waaye lool tax na ba jàllut nga gis feneen koo xamante ni bi day mokkal lool mën a bind mbindu mu wér lool mbind moo xamante ni bi boo koy boo koy jàng doo ca gis yenn yàq day man mu lool man dabt lool waaye du jàll ndax lan dañ ko gën a rafet mbind dañ ko dàq bind kooku it moo nekk gàllankooram kon kan mooy jàll kii jàll mooy jëmm ji nga xam ne day mokkal alxuraanul karim lool man koo bind mbind mi war lool ba noppi rafetle ko looloo tax yombut ñu xam ne eh, ñeent fukki ku ci xas bokk sag njàmbaar kenn wérantewu ko xam nañ ne am nga engagement taxaw war a mit mbind kaamil bi yëpp ba jeex da doo ko xool gëm nañ ne ku toog fii rek am nga pas-pas boobu gëm nga ne man nga ko moo tax nga ñëw loolu tey ñu xam ne wàllu mokkal dañ ci maye ñaar fukki daraja ak juróom yoo xamante ne bii sak sak ñàkk mokkal da ciy feeñ loolu ñu di ko bàyyi xel bu baax kon concours bi faw nga mokkal lool lool door cee war a mën a bokk muy benn ñaar bi ni ñu koy bindee ku ne xam na ne alxuraanul karim ci làngu arab la wàcc waaye nag bokku dara ak nu ñu bind làngu arab lu ñuy wooyee imla xiyaas daa ja mooy langue arabe ni ñu koy bindee nga xam ne ñëpp a ko bokkale alxuraan kenn daa baati boppam yoo xamante ni bii dañ naan nii lañ koy bindee te kenn sañu ko wàcc loolu itam dañ ciy maye ñaar fukki daraj ak juróom bare waa na lool ku mokkal lool euh, ci partie bu njëkk ba day am vingt cinq sur vingt cinq mën bind mbind mu rafet lool am maanaam vingt sur vingt waaye fii la fii la fii maanaam day am jafe foofu loolu itam ñu xam ne dañ koy bàyyi xel nit ki faw mu man bind lool nañ ko saaba yi dul bind nga man bopp lool door cee mën a continuer bu ci topp mooy itam mbind mu rafet daa am sikk yoo xam dañ naan lii su amee dañ naan mbind mi rafetatut loolu ñu génn lu mat fanweeri mbir yoo xamante ne bii ku ca mucc dañ dañ lay may fanweeri daraja loolu itam nekk leneen loo xamante ne bii mbind mu taqaloog ñàkk a jubak laalanteeg gëm ak lu ne fa nekk loolu itam mën ngaa mokkal lool mën a bind mbind mu rafet lool man dabtu lool waaye doo ci jàll taxam ngeen ne téeméeri point boo ñu xasee génn fanweer lu baree bari da cay des kon loolu it ñu bàyyi xel ne bokk na ci li tax candidat bi du jàll ba ca toppitam muy wàllu mbind mu rafet xam ngeen ne moom itam mën nañ ne bokk na ci maanaam li gën a tax concours bi jóg dekkalaat mbindum cosaanu réew mi loo mën a mën a bind da ngay mën a bind mbindu calligraphe mbindu xeetu mbindu réew mi tey itam mu nekk mbind mu rafet moo xamante ne bi ku xool da mbind mi rafet na loolu dañ ciy may maanaam ñaar fukki daraja li soo boolee day nekk maanaam cent point six cent kon ñu xam ne concours noonu lay tëddee képp koo xamante ni bi daal jàlloo ca euh, demi finale na la wóor ne benn ci yéen yi benn ci yii ma wax mooy li nga xam ne tax ne maanaam jàlloo waaye teewul nag ni ma ko waxee woon société bi dafa pare pour teral ñëpp mbooloo mi ñu ngi toog fii bu ñu ci àggee lu ci wa àll wàcc wàllu wàllu gu Serigne Fallou bu ci jëlee kàddu dana leen ko leeralal ñu xam ne tey nag ñu ngi woon ci suñu ñeenteelu jataay ak yéen jataay bi nga xam ne mën nañ ñu ngi ci catul liggéey bi mooy lan demi final bi demi final boobu am na ñaar fukki candidat yoo xam ne ñëwoon nañ teew amoon na fukk ak juróom yoo xam ne ay góor lañ amoon na juróom yoo xam ne ay jigéen lañ toog nañ fii ñu préparé question yu bari tegal leen ko kenn ku nekk ñëw na gis ngeen ko fii xool enveloppe ba ko neex mu jël ko boo ko jëlee danga ci fekk benn rubax boo xam ne moom ngi bind bind boo xam ne di kenn ku nekk juróomi nit ñu nekk jël nañ benn euh, surveillant boole ko ak moom ba ba liggéey bi àgg di ko xool lépp lu ñuy aaye muy téléphone ak wax ak kenn ak lu ci aju lépp nga toog bind rubax bu mel na mu war a mel jàpp nga ne mel na la mu war a mel ñu àppal loolu leen lu tolloo ci fanweeri wax maanaam ñetti waxtu ngir ñu war ko ci bind loolu jàll na ci jàmm ba yaakaar nañ ne itam ah mbind mi ñu gis daal ñun ci rafetaay ak lañ ca gisagun xam naa ne ñi nga xam ne ñoo ko war a topp gëm nañu danañ sonn ndax fii moom ah, buñ demee di segg ba ñaar fukki des moo lay xamal ne ay les meilleurs rek ñoo fi des kon ñu xam ne loolu mooy liggéey bi ñu nekkoon tey kon la ca topp mooy suñu ndaje mi mujj mooy lada bii di ñëw incha allah taala danañ dajewaat ak jury bi yore topp bi ak commission boobu ñu fas yéene topp ñaar fukki candidat yooyu ñu xam ñaan ñoo ñi nga xamante ne bi ñooy nekk lauréat maanaam cinquième édition deux mille vingt de de mille vingt trois incha allahu taala kon daal xam naa ne ci tënk loolu cadre yoo xam ne danawoon naa andi leeral leen ko itam ngir seen bopp ubbi ngir seen xel dal ngeen xam ni mbooloo mi nekk fii kenn ku nekk suñu boroom la jiital ci lépp balaa dara xew amu ci kenn ci ñun koo xamante ni bi dana bàyyi lenn loo xam ne jàpp nañ ne dana yàq liggéey bi ci dara ñu di ko seetaan bañ nañ ko ba saa yu ñu toppee xam ngeen ne dañ koy topp ñetti yoon commission bi un day topp ba pare noté page bii da koy topp noté ko jox commission deux ñu topp ko noté ko ñaari commission yi même seen point suñu soree pile de six points dañ koy toppaat loolu jublu ci lu may ngeen xam ne liggéey bi dañ ko jox yitte jëm laaj yitte ja ca jaadu moom lañ ko jox seen xel dal bu baax na seen xel dal bu baax ngeen liggéey bi ñu fi nekk moom seen borom lañ jiital ci lépp jëndewuñu ko dara incha allahu taala loolu daal laa ci doon dugal ci kàddu di bàyyi euh, mbooloo yi nga xam ne ñoo ci war a tegaat kaddu ñu xam ne fii tey ñu ngi fi teewoon tey ci turu Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo jiite commission scientifique ak euh, Serigne Moustapha Diom Ndar mi nga xam moo jiite jury bi man maa yor secrétariat bi ci wàllu langue arabe fii ci liggéey bi seq ko ak maam si ak ñi nga xamante ne bi ñoo ko seqoon tey ak servant yi nga xam ne ñëwoon tey doon saytu liggéey bi di santaat bu baax nag G3S euh, ci taxawaay bi nga xam ne ña ngi fa yóbbu alquranul karim te suñu borom mi mën lépp jaarale ko ci seen i loxo loolu seen ndam la ñu ngi ciy sant bu baax di leen ñaanal suñu borom jàppale ñu jàppale leen ba liggéey bi fañ koy yó yéenee yóbbu mu àgg fa di ko jaarale nag ci turu sëñ Fall mi toog ak suñu daam ak mboolem mi nga xamante ne bi ñoo seq liggéey bi àggale ko ci alaaji sëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa lu baax li ngeen mos ñëw naa fi tey as ndab laa ngi nay bar waa c 3 lu baax li ngeen mos ñëw naa fi tey as ndab laa ngi nay bar téere bu tedd ngeen bañ mu fàddu bu kenn gedd borom bi mooy mooy far mbind mu taaru ku xool ko waaru tuubaak ndakaaru jëlul di dem ndar seen mbir mi yaana sun xol seddaat na lépp rafet na nan dëddu naqar na buur bi fay leen xéewal tamay leen tiraa nga jox leen seen jublu giifar allahuma salli wa sallim wa barik wa sallim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi noo ngi leen di nuyu ci turu mboolem ñi nga xam ne bokkoon nañ ci euh, mbind mi te yàlla def agguñ euh, ca fan bëggoon a àgg ci coobare suñu borom te itam ni ko mbokk mi waxee léegi sëriñ bi Mbàkke noonu yaakaar naa nun ñëpp maase nañ xame ko noonu waaye lépp loo xam ne dañ ne nangam lim sàngam rek lañ sa soxla même bu ñëpp manoon loola lépp it dina am koo xam ne faww suñu boroom dina am lu mu ko nattoo ba na ko bëggoon du amee ndax lim bi moom wër wër koo ëpp kon nag ñun ñëpp dañuy maas xam ne ña dem du jaag dañoo dàq liñ doon def ñi toog ñi toog it du caagin seenu ñàkk man moo leen tax a toog waaye jàmb ndagam ay jullit lañ tey itam xam na ne suñu borom mooy dogal lu ko soog te kenn ku nekk bu fekkee ne yaa ngi bàyyi xel la nga doon bind man dinaa wala ba ku ne man laataa lii di xew xamal naa sama bopp ne déwénati loolu moom xamal naa ko sama bopp ca ca gaaw ba bi yàlla dogalee ñu dem alxamis suñ xel nekku ci ajum suñ nekku ci waaye ba nee ca gaaw ba daal ki njëkk teyal dafa mel ne suñ borom doon wane la kii ma njëkk teyal wallaahi xat wam wama njëkk tiim ci laa gis sama jël ma xam ne lii moom déwénati ci laa woo kenn ku ci bokkoon ma ne ko ah, man de xam naa déwénati kon loolu moom xam nañ ne lu yàlla lu suñu borom dogal la ñi ñi buñ ko bëggutoon te yàlla dogal ko it mënuñ ci dara kon lu suñu borom dogal la may soññi sama bopp di soññi ci des it li fekk sart yi tax ñu bokk mi mi mi mi nga mën a nekk nañ wëy di dem bul ne déposé naa jëllu ma du ma dem ndax lu loola saa yoo ñëwee ma benn ci man man nga cee xamee loo xam ne xamoo ko woon benn ci alxuraan ji wala nga xame fi ñoo xam ne ñàkkoon leen a xam wóorut ndax benn man mii xame naa fi ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñàkkoon leen xam wóorut kon nag loolu rek doy na sëkk sëkk tiraanga te itam yàllaa dogal nit ñi ngi jongante ci leneen kenn ku ne kon la nga am ngay dugge marché am na ñoo xam ne ña ngay def leneen ab safaan tey koy fësal di ca yëngu di ca di ca tubaarikàll am ci mbégte lool noonu ñi nga xam ne yàlla dogal nag téere bi la ñu suñu borom séddee kon tamit waruñ cee tayyi wuñ cee yokkat nga xam ne tiraanga yi ci ñëw xëy na lu dabe la waaye yaakaar naa suñu maam yi ñu ko gënoon a man fop gënuñu ko bëgg fop gën ñoo ragal yàlla fop te liñ ci am amuñ ko woon kon nag yaakaar naa bu ñu xoolee foofu foofu rek lu mu ci ma doon kenn du ko kii waa yaakaar naa ci jataay yi ma gis ñi ma gis ñëpp amul kenn koo xam ne nga gis xar kanamam ba gis ci luy nuru na am na am na naqar kon yaakaar naa mbégte rek la lu yàlla dogal la ñii demee yéene nañ leen ko lool ka nga xam ne yàlla ñi nga ñett ñi nga xam ne yàlla dogal na euh, mu gën ci ñoom yàlla ko suñu borom def mu gën ci ñoom ñeneen fukk ak juróom-ñaari ci des nga xam ne euh, euh, ndax ñett rek lañ ci tànn kon fukk ak juróom-ñaari ñoom ñoom te ñu déwén incha allah yàlla nañ ci bokk ñu ñii toog ñi yàlla nañ ci bokk ñëpp ak ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu war a ñëwaat te ñëwagul ndax bari na ñoo xam ne ñooñu dàq alxuraan fop dàq ñu ko bind fop te dépp maanaam demi finale sax jëluñ ko loolu am na ci kon mbirum suñu borom la dañ ciy sant bu baax di ciy bég waaye nag di ñaanal ñii ndax euh, téere bi day téere boo xam ne li suñu borom waxoon ci alxuraan ci sootu zuxruf fastamsik billadi uxiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun kon képp koo xam ne suñu borom defal na la tawfiix ba ngay jiima feeñal dara ci téere bi loolu sa teddaang yàlla rek moo ko xam yàlla na yàgg yàlla na sax barke Sëriñ Tuubaa noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Diakhaté kàddu yu rafet na ma doon wax ci turu ñi nga xam ne demi-finale ci lañ yem kon sëriñ Mbacke turu comité scientifique bi nga xam ne ka nekk ca bopp ba mooy Serigne Khadim Ndiaye moom it kon moo ko fi teewal bisimilah Serigne Mbacke Sourang. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu bu baax te di leen siyaar di leen ndokkeel ci bisu alquran bii nga xam ni moom la ñuy amal tey fii si Touba. di leen jaajëfal di leen masawu coono di leen dalal ak jàmm ndax ahlul quran moom ñooy duyuuf rahman gani suñu borom tabaraka wa taala lii sababu ndaje mi itam mbokk yi wax nañ ko mooy liggéey boo xam ne mi ngi tàmbali woon ci toll ci limu euh, six cent maanaam huit cent quatre euh, ci ab lim 681 bin defee dépôt demande nañu dañuy def concours bi lu toll noonu ci ay candidat bokk nañ waaye xam nga ci biir segg bi ak tas gi ci biir 681 yooyu am na ci 260 yoo xam ni ñoo jëm ci wàllu sud bi te seen cérémonie jàll ñu doon ko amal ci maatam li desaat te mooy bii nga xam ni moom la ñuy def final tey lim bi àggoon nañ ci 421 xam nga 421 mbokk yi boo koy xool lim bu bari la waxoon nañ fi ñu jaar ba agsi ci demi-finale bi waroon see tànn ñeent fukk fanweer yoo xam ne ay góor lañ ak fukk yoo xam ne ay soxna lañ biñ ko defee itam yàlla dogal ñi ciy liggéey ci wàllu bind bind ñi topp topp bañ àggaat ci ndajam tey mi nga xam ni lim bi toll nañ ci maanaam fukk ak juróom yoo xam ne ay góor lañ juróom yi di ay soxna ñu def ab liggéey boo xam ni noppi nañ ci ñi koy saytu ñi koy saytu itam incha allah alxames bi ñuy dëgmal danañ ko saytu niñ ko war a saytoo ci kàttanug yàlla génne ci liñ ci war a génn am ci ñett ñoo xam itam ñoom la société bi tànn ngir war leen a jox seeni neexal waaye lii mat a xam te waral leer itam ci képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci jongante bi bañ tàmbalee ba léegi ngay bokk walla bokk goo am pas-pasu bokk lii war a gën a leer ci sa bopp dañ koy sàkku ci ñépp te defe ne itam leer na ci seen bopp mooy yaatal mbind alquranul karim mbokk yi amul benn amul benn école bu muy sukkandiku yaatal mbindu alquran amul benn mbind moo xam ne fa lay sukkandiku jàpp ne ñoo ñoo war a jàll loolu amul li am mooy ñi koy say itam bokkuñu ay daara yu ñuy jóge li gën a tegtale ak maandu mooy képp koo xam ne jàpp nañ ni ñi ñu war a topp am na si koo xam ne sa daara la jóge sax bis boobu dañ lay jéggal nga toog waaye doo bokk sax si ñuy topp ngir lan mën a génn ak maandu waaye ngir dalal itam xel ñoo xam ne itam depuis ñeent fukk yooyu ak ba ñu des dañuy jàpp ne ñoom ñëpp seen alxuraan rafet nañ amu si kenn koo xamante si nii itam euh, xool nañ la ba gis ni mérito jàll ndax alxuraan ji dafay mat mokkal gi dafay nekk mën a bind gi dafay nekk waaye xam nga ne am na lim boo xam ne boo ko soxlaa war saa tànn ab lim il faut que am ñoo xam ni ah bu yàlla dogalul lañ mën a jàll te ñaari nit mën nañoo yem ci lépp ci mokkal ci bind waaye nga gis koo xam ne bi muy bind xumus yi respecté na ko waqaf yi respecté na ko rek ñu tolloo kooku jàll parce que ke ko andi te te andiwu kon ñu xam ne liggéey bi lu sew la ñu ngi saako itam ci képp koo xam ne yaa ngi am pas-pas ngay jéem a abonné ci compte yaatal mbindu alquranul karim ndax dana tax nga xam yan norme la ñuy bindee ndax loolu comité suivi bi dañu ko faral di leeral waaye pour mu duggandoo ci bopp nit ñi dafay xaw a jafe ndax araf bu laal morom ji rek dañ koy corriger këyit wu takk sax dañ koy corriger am na nu muy demee xoos bi am na nu muy demee sax dañu koy dañ koy corriger te itam wenn këyit bu ne la ñett nit ñu mokk alxuraan danañ ko topp jàngandoo ko ñett yoon foofu néewaa ñu bàyyi loo xam ni lu bët mën a tege la am na si loo xam itam danañ leen ko leeral lépp loo xam dafa ñëw ci ñaari anam ndax léeg-léeg am na bu ñuy bind am na ay yenn école yoo xam koy bàyyi am na ñoo xam ne baat yi ñii dañ koy def aaye ñii duñ ko aaye lépp loo xam ñaari version da ciy wàcc li si ëpp mbooloo mi dañuy dëppoo lu mel noon nañ bàyyi nit ki fi mu jàng bind lam def ñu ñu ñu ñu fekk ko si kon ñu xam ne liggéey bi liggéey bu bu taxaw la liggéey la boo xam ne ñi ko taxawal itam benn lii benn la ci jéego yi xam ñu ngi def si wàllu social ndax dañuy yëngutu si wàllu yëpp ngir mën a joxonte loxo ak mbokki jullit yi waaye itam lii nekk ab jéego boo xam dañ ko tànn ngir jàppalante ak ñooñ alxuraanul karim ngir ñu mën a rafetal seenum mbind waaye tam bind des noonu nga xam noon lañ daje tey ni ko Serigne Sam waxee wuutu fi kilifa yi sëñ Xaadim Ndiaye mi nga xam moo jiite commission scientifique ak Serigne Moustapha Diop mi nga xam mooy jiite wàllu jury bi ñoom ñëpp tey ñu am ngant loo xamante si nii Euh, mayu leen ñu toow ñu teew waaye mel na ni ñu ngi fii fi ak itam teewal fi képp koo xam dafay liggéey ci biir comité bi soxna yitam ni nga leen gisee soxna Mariam Jaxate soxna Fambay Ñang soxna soxna soxna Jóob ñoom ñëpp ñu ngi fii ànd ko ak soxna Maawa Dem mi nga xamante ne ku ne xam ne ci liggéey bi la nekk waaye lépp rek ngir bu ñee di saytu góor ñi ñoom ñuy saytu jigéen ñi waaye li wér bu wér daal mooy ta mbokk yëpp yóbbaale ko liggéey bi bu si kenn découragé liggéey bu kenn xaddi ñi koy def ku xool coono yi ni jànkuwanteel duñ nelaw dañuy tukki di dox ay kilomètres di jël di jël ay téere di ko yóbbu si ay daara yoo xam ne xalaatoon na ne duñ mës bind ñooñu ñu ngi bind ngir concours bi ne alxuraan kuy def lu mel noonu nag jàpp naa ni sa xel wala sa bët jël na ngay am koy xëcc walla nga am koy puus képp ku man jàppal ni bis mën naa ñëw nga jël li fi nekk te it mboolem ñi nga xam dañuy gagné itam néewaar nga gis nit ko am day ñëw première édition rek jël ko dem ñaara ñu si bari danañ si nekk nekkaar si nekkaar si ba yàlla dogal seen bis ñëw waaye li wér bu wér daal mooy ni ko sëriñ Abdoulaye waxee léegi jaxate loolu na leer si bopp yiñ bopp ñëpp ku jàll ak ku jàllu maanaam ñëpp a gañe ab tànn nag moom munta ñàkk kii moo jiitu kii moo ci tege kii moo si tege waaye amu si kenn koo xamante si dan na dañuy jàpp ni des nga ginnaaw ndax képp ko mën ngaa bopp sumun toog ak ni mu jafee nga mën a taxaw bind ko te doo ko xool wóolu nga sa bopp bari na ñoo xam boo leen dañuy bind alxuraan waaye kenn du ko xool ñu baree bari si la ñuy retiré woo dellu ginnaaw kon ku mën a taxaw ñu jox la 30 lignes nga xam day tolloo ak rubu ak ak rubu ñëpp tolloole ko te itam code bi nga xam ne sëñ Saam dafa koy joxe nekkul lu ñuy discuter ni sëñ Mbàkke moo war a jëlee wala déedéet ay numéro la kenn ku si nekk bi nga yem boobu mooy bi nga xam ne moom nga war a liggéey kon ñu xam ne ci njëlbéen gi ba ci mujj gi ñi am xalaat bi ak ñi leen ciy jàppale lépp li leen tax a jóg mooy alquran bind alquran sax fi ñooñ alquran itam fonkaat bind liggéey bi jëm si kanam waaye dara luy nuru jëm fee wala jëm fële amu si loolu nag dañu koy wax waaye jàppuñu sax ni am na nit koo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi foog loolu léegi nag li ci des mooy ñaanal rek kilifa gi nga xam ne moom moo am xalaat bi muy alaaji Serigne Seck doon nitug daara léppam di daara mu jël liggéey bi teg ko ci jox ko rakkam ji di Cheikh Mamadou Fadil mu di ko doxal ni mu ko war a doxalee liggéey boo xamante ni ni ma ko waxe woon léegi ba ci coordonnateur bi Serigne Dame Touré ñoom ñëpp koo si gis ci li ngeen di gis rek mooy jataayu yu gàtt yi waaye yi ko jiitu yëpp ay liggéey la yoo xamante si ni yu metti la yu yu diis la ngir lañ kenn ku si nekk lii sa àq rek nga mën koo am di dalal seen xel itam ni képp koo xam da ngaa dem final incha allah li mbooloo mi jàpp mooy këpp bi nga xam dañ la ko bind da nga ko bind tam am ay njuumte si kàttanu yàlla mbooloo mi danañ si liggéey jox la ko ndax itam li baax mooy nit ki li ko daaneel te xamu ko nga wan ko ko ngir bu ëllëgee mu mën a passé waat étape boobu jàll di insisté waat nag bu baax a baax si képp koo xam yaa ngi yëngutu si yaatal mbindu alquran nga jéema xam compte yaatal mbindu alquran dugg fa di ko gëstu ndax lépp nga fa ñu ngi fay jàngale li jëm ci wàllu rasmu lépp loo xam mooy critères yi ñuy nat ngir bind di nga ko fa fekk si biir te loolu dafay dimbali candidat bi ngir bu toogee mu xam yan lan la war a watandiku ak lan la war a def ak lan la warta def léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni tam yàgg nañ di ko wax képp koo xam ne heure bi dafa jeex te sa mbind matut dossier boobu ñaare kenn du ko topp dañ koy classé loolu dafay loolu dafay am suñ saam leeral na ko kon ñu dégg ni daal mbir mi ci tàmbali ba ci ak mujj lépp lu leer la yéen a ju sell moo ko lal liggéey alxuraanul karim moo ko lal kon yéen ñi siy jàpp bu kenn découragé waaye ñu koy taxawal itam yàlla na sama borom tabaaraka wa taala taxawu leen saahiran wa baatinan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Mbacke kàddu yi rafet na euh, kon ñu jox kàddu kenn ci jigéen ñi àndaloon liggéey bi mu bokk ci comité scientifique muy soxna Mariama Jaxate bismillah soxna Mariama yëpp waaye euh, di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi toog ah te jiitañu ci liggéey bi euh, kàddu yu ñu fi yëkkati nag ñu koy yëkkati turu soxna maam Awa Dem mi nga xam ne moo jiite wàllu soxna yi waaye di wax sax ne kàddu yi daanaka mënoon naa ñàkk Ah, ndax ñunu soxna yi dañoo nekk ci suñu ginnaaw sang yi ànd ak ñoom liggéey bi te ñoom suñu waxee rek wax nañ lépp waaye nag dafa mel ni dafay doon kàddu yu soññee rek jëmale ko ci ah, soxna yi jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi yépp ñi nga xam ne ñoo participé ci konkur bi waaye tamit ah, jëmale ko ci soxna yi nga xamante ne ñoo participé ci concours bi Ah, di soññu ñëpp nag ah, di leen wax tamit ah, ñi nga xam ne ñoo participer ñëpp ñoo am ndam ndax alquranul karim ku ko jàng ba wattu ko mën koo bind te doo ko xool loolu ndam lu rëy la loo xamante ni ñëpp ko am xëy na dafay tollook ne concours nag ñëpp mën nañoo bokk gañe waaye faw mu am ñu raw faw mu am ñu jiitu am ñu ca topp kon may félicité ñëpp di leen jaajëfal waaye tamit di jaajëfal ñi nga xam ne ah dañoo rocceeku ci konkur bi ah, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di xam ne it ñu jiitu yi tamit ah dañ leen a yóbbaale rek ginnaaw faaw ñeen ñu jiitu loolu mënta ñàkk ah, di jaajëfal soxna yi bu baax a baax di leen soññiwaat bu baax a baax nag ci ñuy participer di bon ci concours bi bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo des ñii te dugg ci final bi yàgg nañoo def si concours bi xëy na daawuñu egsi fii ba tey ñu egsi fii yàlla leen suñ borom defal ndam fa ñu jëm ba ñu bokk ci lauréat yi nga xam ne ñooy jiitu ñoom la ñuy décorer kon suñu cadre cadre euh, soññee la rek di sant bu baax a baax nag C3S ci liggéey bi ak ñi nga xamante ne ñoom la ko bokkal yépp ndax liggéeyub lislaam la liggéeyal alquranul karim ah liggéey bu rëy rëy la kon dañuy sant bu baax a baax di jégalu ci kàddu yi wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf soxna Mariama Jaxate moom moo doon wax ci turu soxna Maawa Dem ma nekk Poroxaan te jiite comité scientifique bu jigéen ñi kon ñu jox kàddu lu Fallou sëriñ Serigne lu sekk moo war a jël kàddu wax ci turu sharika bi muy société entreprise bi. C3S euh, yor kàddu sëriñ alaaji sëriñ Seck kon sëriñ Fallou bismillah rajim asalaamaaleykum seen mbokk yi ñëw leen nuyu leen siyaare di leen jottali nuyoo alaaji sëriñ Seck mi jiite liggéey bi mu yaatal mbindum alxuraan am na kuy ñëw ko bu ñëw dina wax ci turu société bi waaye man may wax ci turam di jottali ak cantam gu jóge ci moom ñëw ci yéen tàmbale ci candidat yi participer ñu ne kon six cent quatre-vingt-un six cent quatre-vingt-un bu ñu demee ba weex des yi nañ xam ne ñu ak ak we yi génn ñooñu war nañoo xam ne ay jàmbaar lañu ndax mbir boo ko jëkkee six quatre-vingt-un nga dem ba necca xam nga ne jàmbaar nga kon nag ñoo leen di sant bu baax a baax te di leen muy yéen we yi xam ne si yéen a demoon demi final ak yéen we yi dem final ñu ngi leen sant bu baax te leen dollee ñaax ngeen gën a góorlu te xam ne dugg tey rek jàll tey yombut ku fi ñu fi gañee ñëpp rek ñu participer nañu ay yoon ni ko ñi ko jiitu waxe kon nag ñu ngi leen di gën a encouragé ngeen gën a góorlu lu ngeen gën a man rek ngeen gën a ko dolli ndax ñun ñii di ko organiser ñun duñ toqi mukk li fekk ñu ngi leen di gis ndax liggéey bi yéen yéen tax ñu taxawal ko kon li fi génn ngi ci bopp rek incha allah ñu ngi seen ginnaaw ni seen kanam di taxaw waa ndax ñi war a ñëw itam war a ñëw fekk leen fi yéen itam ñu war a wéyee lii ndax suñ mag ñi fi njëkk a bu buñ doxatoon lii kon yéen bu ñëw doo ngi fekk ñu ne li ñu ñor mooy ñu ne ci ba ba yéen tam ànd ko yéen ba bu ngeen fi ba ëllëgee tam ñeneen ñëw guutu leen ci kon ñëw leen sant bu baax a baax tàmbale ci 681 ba ba ci ba ci wen yi ñu war a sargal tey ak wen yi xam si ñoo dem weñ ñi war a sargal tey ñoom itam kenn ku ne am nga enveloppe boobu itam suuf bu moo la ko neexale toll ci deux cent mille ndax xam nañ ne yéen ñëpp yéen ay jàmbaar waaye nag euh, jongante moo demee noonu sens lay topp rek waaye fii ku ñëw jàmbaar doo fi ñëw bin roboo xooloo ko ak njàmbaar mënu ko wees kon ñëw ni sant ba dina gërëm xanaa di ñëw ci ñuy séqal liggéey bi rek ñoom itam ñoo xam ñooy taxaw liggéey bi muy comité bi ak ñi bokk ci C3S comité bi tàmbalee ci sëñ xaadim sëñ Moustapha Diop ah, ak ñi ko seqal ñëpp ba sëñ Sam mi ak sëñ am Diop mi fi teewal sëñ Moustapha Diop Ndar ak sëñ Mbacke Sourang moom fi teewal eh, sëñ xaadim ndax ñoom dañoo am ay gàllankoor ak ku mu tudd rek ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp xam ne ñoom itam liggéey bi wax dëgg fu ñu ko fëggutul ñoo ñu ko fa ndax mel ne ñun ñu ko argune sax ñoom ñoo ñu gën a sawar te it bari nañ lool waaye teewul mu waxtu waxtu liggéey bi ñëwee rek ñu bàyyi seen yite ne ci liggéey bi ndax xam na ñoom seen seen liggéey weesu alxuraan xanaa di dolli tekki rek ñi ñi sëñ ñi ma sëñ booy liggéey bi muy ko mel ne Dame moom mi coordinateur bi maa ngi koy sant bu baax ndax moom itam jàppandal ma yu bari noppal ma ci lu bari ndax xam su ma yitte mu ëpp ay yitte maa maa gën a xat waaye loolu xam na ko ba lépp luñ ci war a dox rek mi ngi koy dox ak ñi sës ci moom ku mel ne Modou Mamoun Mouhamadan xam naa lim dina jafe sëñ maam Balla Touré boobu ma kenn daal ñoo ngi sant ñëpp ci turu sëriñ ak Abdou Seck mi nga mooy tam ci liggéey bi la bokk boobu ma kenn daal li mu dafa jafe waaye xanaa rek euh, li ñu fi fi ñu war a jëm la mooy woo wookan daay yi xaj ñooy vingt personnes yi jox leen seen i neexal kenn kon daañu wax kale jox sab neexal bu dee ñu dem ci journaliste yi ñi ñuy laaj ñu laaj leen léegi li des mooy addiye yi nga xam ne société bi waajal na ko pour jox ko vingt candidats yi nga xam ne dañoo mënta àgg final àgguñu final ay demi final lañ yam kon desel yoral na leen kenn ku ne ñeent fukki junni la koy jox muy deux cent mille léegi nag addiye yooyu Serigne Moustapha Diop mën naa ñëw Serigne Moustapha Diop am di Diop yaa ko jox addiyam Serigne Moustapha Diop ak Cheikhouna Mbaye sëñ Moustapha Diop ak Cheikhouna Mbaye mën nañoo ñëw sëñ Amdi Diop moo leen jox seen addiya Cheikhouna Mbaye mën naa ñëw Mourtala Fall na waaj moo sëñ Dame Fall Mourtala Fall ak sëñ Dame Fall nañ waaj sëñ Sambake moo koy moo leen jox seen addiya sëñ Amdi Diop mooy jox Moustapha Diop kenn la woon ci candidat yi ak Cheikhouna Mbaye sëñ Amdi Diop moo leen jox ad seen addiya addiya yi mi ngi toll ci deux cent mille ñeent fukki junni kenn ku nekk Mourtala Fall Serigne Dame Fall sëñ Sambake moo leen jox seen addiya Mourtala Fall ak sëñ Dame sëriñ Serigne Sambake moo leen jox seen addiya Baye Mor Diouf na waaj sëñ Fallou Seck moo ko jox addiya Baye Mor Diouf kooku mooy Mourtala Fall sëñ Sambake moo ko jox addiyam Baye Mor Diouf sëñ Fallou sekk moo ko jox addiyam ah, Baye Sall Baye Sall Ndiaye na waaj sëriñ Dame Touré moo ko jox addiyam Mamaram Diop soxna Yacine Touré nañ waaj maam Maram Diop soxna Yacine ture soxna maam Mariama Jaxate yaa leen jox seen addiya ñoom it kenn ku ne am na ñeent fukki junni góor jigéen a ci soxna Mariama Jaxate moo leen di jox seen addiya maam Maram Diop soxna Yacine Touré sëñ Saliou Khoule sëñ Mbàkke Sourang moo ko jox addiyam Cheikh Saliou Mbàkke sëñ maam Cheikh Ndiaye moo ko jox addiyam ñoom it kenn ku ne am na deux cent mille comme ni ñu koy waxee rek société bi moo leen ko njukkale Baye Fallou Gueye na waaj Serigne Khadim Mbaye moo ko jox addiyam Mouhamad Lo la waaj sëriñ Mamoun Fall moo ko jox addiyam Mouhamad Lo soxna Anta na waaj ak soxna Maami Dieng Adja soxna Diop moo jox seen addiya soxna Anta soxna Maami Dieng Adja soxna Diop moo leen jox seen addiya sëriñ Abdoulahat Jaxate sëriñ Mame Balla moo ko jox addiya Baye Saliou Cissé sëñ Cheikh Kane Basir moo ko jox addiyam Baye Saliou Cissé sëñ Cheikh Kane Basir ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun